Euh, mbokk yi tey dañu am mbégte mu rëy ñëw fii ci kan Abdou Diassé teew ak madame la commissaire en charge des question intérieures ci Union européenne madame Ylva Johnson ànd ak madame Irène Mingasson mi teewal Union européenne fii ci suñu réew Union européenne yàgg nañu di liggéey ak Sénégal yàgg nañ di waxtaan ak ñoom ci fan yu bari li nga xamante ni moom moo ci soxal ministère de l'intérieur te ñu ko doon mandargal tey ci suñu ñëw fii mooy am na jàppalante bu ñuy jàppalante ci wàllu yu bari am na loo xamante ni dafa jëm ci wàllu xeex lépp luy xale yi dem bitim réew te di ci dem ci anam loo xamante ni àndul ak sécurité seen bakken mara deytaal yi mën ci des ñu mën ci aussi perte seen koom-koom ndax li ñuy yaakaar ni moo am saa su nekk fi ñuy dem du loolu moo fa nekk li ci topp mooy wàllu ginnaaw siège bi nga xamante ni teg nañ pose de première pierre bi mooy ñaari bateau yi nga xamante ni dafa bokk liy mandargaal liy rafetal suñu partenariat waaye madame Johnson wax na ko léegi ci kàddoom te ànd naa ak moom ci analyse boobu nit ñi dañu mës soxla di jóge seen réew di dem yeneen réew loolu mook àdduna ñoo ànd suñu ay jeunes am nañ droit te jeune bu nekk wala nit ku nekk am nga droit wala nga xalaat ni boo toogee ba mu yàgg war nga mën a dem seeti li xew ci beneen réew wat ci sa réew waaye mu ànd ak sécurité mu ànd ak karange te sa bakken bañ a doon loo xamante ni euh, daf ciy des wala mu bañ a doon mu bañ a am benn danger ci li nga moom mooy sa wér-gi-yaram wala ci sa koom-koom. ba tax na suñu lëkkoo ak union européenne bu dee ci wàllu ministère de l'intérieur dafa dem ci ay poñ yu bëri ci jàppalante ci ñi nga xamante ni dañuy nax nit yi di nax xale yi di leen gëmloo loo xamante ni amul waaye loolu du rek wax ni bu kenn tukki ndax loolu sax kenn xalaatu ko ku bëgg a tukki mën nga tukki mais booy tukki dafa am yoon yooyu jaar yoo xamante ni sa bakken du ci des sa wér-gi-yaram du ci des waaye sa alal tamit du ci des te nit du la nax loolu nag il faut que information bu baax bi ñëpp yëg ko ñëpp xam ko nit bu fekkente ni yaa ngiy dëkk nekk sa dëkk am ci loo jàpp wala nga am formation professionnelle am na waxtaan wu ñu ci defoon ak Espagne tey ak euh, chef commissaire Union européenne bi fi teew ak chef de délégation bi am na waxtaan yu ci jot a def li ñu xalaat mooy fexe ba jeunes sénégale yi nga xamante ni bëgg nañ tukki ndax loolu mooy seen option loolu lañ bëgg a def. ñu xalaat ba bu ñuy jógee fii di dem ci réew yi nga xamante ni muy réew yi nekk ci noor bi muy Amérique wala muy Europe et particulièrement Europe ñu dem ci ci mu muccee ay te loolu mën na nekk ndax Europe am na lu ñu soxla ci Afrique soxla ko ci Sénégal Sénégal am na lu mu soxla ci ñoom ndax adduna mooy doxee noonu dañuy lëngoo jàppante ngir mën a avancé loolu nag pour ñu yekk ci yegg si ci dañuy waxtaan am na ay programme yu ñu ci mës a def ak Espagne nga xamante ni Espagne day wax ni soxla naa. ñii nga xamante ni ñoo dëkk Sénégal liggéey boo xamante ni war na fa mën a jugee ñëw fii ci yenn domaine yoo xamante ni seen jeunes yi amuñu ci expertise am na loo xam ni ñun ñoo leen ko dàq li nga xam ni ñun ñoo leen ko dàq wala ñoom amuñu ko ndax seen population amul ay spécialité ci domaine boobu maa ngi fàttaliku dañ doon wax wàllu menuisier métallique wàllu yenn xeetu soudure yi mais loolu dañ koy identifier buñ ko identifie ñu tam ci ba juboo ni léegi nañu xool sénégalais yi nga xamante ni qualifié nañ ci yii domaine ñu boole leen. ñi nga xamante ni mooy entreprise yi nekk Europe ñu def xaatim mais respecter ay droits jeune sénégalais yi war a dem foofu bu ñu ko xaatimee ñu mën a dem ci jàmm liggéey ci jàmm ñu respecter seen àq ak seen yelleef ñu ñibbisiwaat ci jàmm donc migration du question boo xamante ni prévention wala répression moo koy régler kese dañ ci boole waxtaan boole ci dynamique économique bi nga xamante ni moom mooy ànd ak ñëpp gis ci seen bopp. réewu tugal yi gis ci seen bopp réewu Afrique yi gis ci seen bopp mais suñu ñaari askan yi tamit gis ci seen bopp loolu mooy li nga xamante ni mooy li nekk ci ginnaaw waxtaan wi ñoom seen intérêt ñu jël ko en compte mais ñun aussi suñu intérêt ñu jël ko en compte suñu intérêt yi nga xamante ni dañu bëgg dem bitim réew ñu jël ko en mais ñoom aussi seen législation li mu prévoir ñu jël ko en compte loolu yëpp bu ñu ko waxtaanee ñu dajee ci li nga xamante ni mooy jariñ ñaari réew yi. réewu Sénégal ak réewu Europe yi jariñ askanu Sénégal ak askanu Europe yi buñ ci dajee ak lépp luñ ci mën a ànd buñ ko xaatimee mu doon lu leer loo xamante ni buñ ko wéyalee dina doon njariñu yaar ñaari askan yi loolu mooy solo waxtaan wi te loolu mooy li nga xamante ni lépp moo nekk ci ginnaaw daje yi nga xamante ni ñoo koy daje ma leen di sant di leen gërëm ci seen teewluwaay euh, di leen euh, remercier également merci beaucoup